téléspectateur 28 pro TV ginnaaw bi ñu ziar leen tey nag ñi ngi fi ànd ak waa dalal xel Serigne Saliou nekk ay ndaw yoo xam ne lenn rek moo leen tax a jóg mooy ñi nga xam ne ñi ngi dox ci digg mbedd yi ànd seen sago ñu jël leen leen sang leen bañ set wecc yóbbu leen seen biiri kër bu fekkee ne amuñu fu ñu nekk ñoom ak i mbokk dinañ leen taxaw yóbbu leen wutal leen fenn foo xam ne fa lañ nekk ci ndigalul xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké mbokki julli di mbokk taalibe jóg nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir taxaw ñu wér xel fii ci dëkk bi bëri lool euh, Ndey Jóob bi nekkoon marché moom lañ taxaw euh, jële ko foofu mu sangu sol ay yëre yu bees tàq dëkk bi yëpp kontaan fuñ jaar mais dañoo ñëw fii euh, fi yaayam nekk yaayam nekk fii dafe dafee nekkandi rek mais amu fi kër dëkku fi yaayam tamit amul fenn fu mu ko dugal muy lu doy waar soo ba léegi ñoo ngi wër ay mbokkam Eh, boobu ba léegi ñoo ngi wër te yaayam amul fenn fu ko dugal mu ngi nii jaaxle mais nag dénkane nañ ko ci kër gi en attendant fekk deux jours dinañ àbbu kër wala ñu lijjanti fu may mi ngi woon ci eh, mi ngi woon ci gaaras bu njëkk bi nday Jóob eh, ki nekkoon ci diggante ñaari tëli yi yàgg fa lool kon nag taxaw nañ ko dalal xel bu Serigne Saliou a ngi nii kon nag na ko ñëpp ñaanal Euh, te képp koo xam ne bëgg naa ñëw ànd ci liggéey bi ànd ci ndigal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ñëw 28 ci imaabul Serigne Bassirou ñu jox ko ci carte de membre wala mu woote ci 77 137 47 24 kon loolu noonu la demee wala mu woote ci tigo bi 76 653 38 14 dalal xel bi Serigne Saliou tey nag ñu ngi ci bi yëpp waaw buñ jaar ku wéré di xel ñu defar la nga wattu sangu sol ay yére yu bees waaw ñu yóbbu la say mbokk taxawu la bëri ci ñoo xam ne nag euh, euh, seen i mbokk amuñu fuñ fuñ leen dugal bëri na ci ñoo xam ne seen i yaay yoruñu dara tanewuñ leen waaw kon nag ñoo ngi wut jéem a wut ay kër ñoo ngi sàkk tamit kilifa yeeg ñëpp jàppale ñu ci ñoo ay ay ay kër yu yaatu yu leen dugal. ma. Sëriñ Saaliw yërëm ma yéege ma Sëriñ Saaliw jàlle ma tële na Sëriñ Saaliw sa yërmande lay ñaan Sëriñ Saaliw sant na na Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw yërëm ma yéege ma Sëriñ mooy raxmaan Sëriñ Saaliw nangul ko mooy imaan Sëriñ Saaliw ràññee mooy ixsaan Saaliw doyloo ko mooy lislaam Sëriñ Saaliw Saaliw ani yaa yor bay yag yow Saaliw boo ñoog suñu njóog Sëriñ Saaliw ngir yaa mag yow mi buur Sëriñ Saaliw yow mi weet ci sa nguur Sëriñ Saaliw way naa la borom buur Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw yaay buur Sëriñ Saaliw mani saa yoo ji too xarloo Sëriñ Saaliw soo gëstoo seenu ñu Sëriñ Saaliw dëpp ñëw tey nag ñi ngi fi ànd waa dalal xel Serigne Saliou nekk ay ndaw yoo xam ne lenn rek moo leen tax a jóg mooy ñi nga xam ne ñi ngi dox ci digg mbedd yi ànd ñoo seen sago ñu jël leen fob leen sang leen ba bañ set wecc yóbbu leen seen biiri kër bu fekkee ne amuñu fu ñu nekk ñoom ak seen i mbokk dinañ leen taxaw yóbbu leen wutal leen fenn foo xam ne fa lañ nekk ci ndigalul xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké li ngeen def moom lu baax la uh-huh. maa ngi leen di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndax mënuma ci mënuma woon ci ndey jóob dara mm-hmm. ndey jóob nag ndey ndey jóob sama genn wàll nit la woon moom bi muy nit bi muy moom baax na ci man trop lu lu defal na ma ko lu ne defal na ma ko ci àddina moo moo moo moo moo samay doom sant naa ko gërëm naa ko wax dëgg yàlla aw ma fenn fu mu fu ma dëkk de ku ma ci dimbale baax na wan aw ma fu ma dëkk yaay booy ñi ngi lay laaj ba xam Ndeye Diop bi mu ban année la mel nii. Cece bi mu ko dalee léegi fukki at la. année papaam moom ndax mi ngi dund wala dundul. papaam mu ngi dund. moom de mas na koo faji benn yoon. benn waaw mas na koo faji benn yoon de. Mm-hmm. yóbbu ko yóbbu ko fee. Uh, se uh, eh, faji ko fa mu Ndeye Diop rëcc nag moom. ngi leen di ñaanal ñu gudd fan ñoom ñëpp ñoom groupe bi ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen gërëm di leen sant waaw ñoo yàlla yàlla yàlla nañ na na ak ak njabootam ak seen ak njaboot yàlla na leen yàlla defal jàmm. ñu ne yaay rakku Ndeye Diop ba ñu laaj la noo gisee waa dalal xel bu Serigne Saliou. yi ñu la defal nii nga xam ne kenn sa yaay taxaw na ni sa benn mbokk ñëwul jàppale la waa dalal xel jóg nekk ay ndaw yu jàppale ñi nga xam ne si ni ànduñu ak seen sago lan nga leen di wax naa leen fay rek di leen sant leen gërëm di rafetlu seen taxawaay lool ndax man su man dama da yeeg ñoom seen maajaay yi sax suma coola ma ci joxe sama xol sedd ci lool ndax sama su ma leen gisee sama xel day dem ma xalaat ne ñoom bés bu ñu yëkkal seen lii ñu jug ni xañ na nañ def ay gëstu Ndeye Diop ndax Ndeye Diop feewal ba mu ko dalee ba tey jii amul temps benn mbokk boo xam nga def nga ci ay jéego léegi jamono ji nag moo demee noo xamante ne bi ba buñ buñ la xoolee tax xool gisuñu la ci kenn ko sus duñ la lijjanti duñ la faale waaye dajum nag lii na moo dab waaye bi muy jigéen moom bi bi ko dalagul wax dëgg yàlla jàmbaar la woon waa dara ko ñu waa dara ko ñu sëñ Saar yi maa leen sant leen gërëm ndaxte nii yàgg na métti na te lii fooguma ko ci woon te séentuwuma ko ci woon waaye ba ma gisee ñoom ñuy liggéey di seen gëstu yooyu ci dëkk bi ci la sama xel gën a dal bu baax ma xalaat ne ñoom gëstu yi ñu def nii bés bu continuer dina dina dina am sama xel dina dal daal ci ndi Jóob ne man maas laa jaay toujours maas damay dajeeg ñoom lu bare bare damay dajeeg ñoom bu ma dem maas